defoo ko mari sëgam defoo ko hmm? fii sax du waxukaay quoi léegi je voulais ñu àgg si biir ñu toog ñu waxtaan parce que dama jóg tey uniquement pour te faire plaisir ma déplacé wu ànd ak yow dugal la suma oto dem jëndal la lu ma xalaatoon. nga wàcc ma wàcc tëj suma oto ñëw di xaar nga accueillir ma dugal ma si biir mais nga di ma rejeter <laughs> man ma accueillir la est-ce que guddi di nga ma accueillir ci kaw lal bi. maman j'espère que fii sax du waxukaay. dama caabi gi may toog may toog may toog la ñuy si ah, kër gi heure bu man du ma dugg si kër gi. déedéet. léegi da nga bëgg nit ñi xam ñu wala nit ñu dégg ñu sama wa nga wara a lutax loolu neex neex la tout simplement la yëm yo xam ko baax mbedd la na mo wax lo bu tax ah sénégalais xamal ñu dé mais ok mon cœur am mon cœur teg ma sa loxo wa excusez-moi te nga ma téggé excusez-moi léegi je veux ñëw ñu dem ci biir ñu waxtaan juste pour ma déggoo li ma la wax ci biir suma amé amee la fay dugg wala déggoo ma kon ma y' a pas de problème oto ok ok ok y' a pas de problème de toute façon. je vais laisser tomber non ok il y' a pas de problème. je vais laisser tomber Hein. j'ai essayé de te revenir mais toujours il yaa ngi insister comme il se passe quelque chose te man sincèrement je ne comprends pas. yow quelque chose boobu kenn war laa taxaw di ko nettal yaa ko war a xamal sa bopp. ok y' a pas de problème léegi man maa ngi taxaw à ta disponibilité. ba saa yu la nee heure bu ma neex laa ko ji. mais ça ne veut pas mais ça ne veut que yow bu ma defee kër gi sa sa sa tur rek yow danga ma si limité di ma yem yemloo fii di ma yemloo fële mais la moindre des choses maman bàyyil sax ma dem toog si jardin bi ok léegi yooyu euh, dama lay ñaan benn affaire ah permettre ma man ma dugg parce que comme dama nekkoon si àll bi dama sonn même ma toog sax si jardin bi. permettre la si comme fa nga yelloon man nga bàyyi ma yegg sama chambre. toog déglu sama no stress parce que instant bi stress rek laa dund. ok d' accord naa Thiel waaw am tijji. mon cœur merci. mon cœur bi laa bëgg mu dagg. excusez-moi. ma foi.